asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh man Bouguma Mbaye di wolere président la république monsieur Macky sàll dëkk ci Thiès maa ngi di nuyu nuyu mu tibbee sama xol bi di ko ziare bépp jullit e, li ma tax a jóg nag mooy delloo sargal ak cant gu ma tibbee sama xol bi jëmale ko ci sama xarit sama wóolare démb ak tey di le président la république monsieur Macky Sall monsieur Macky Sall jaajëf jaraa bota wàccoo nga réew mi wàccoo nga ak bi wàccoo nga ak askanu Sénégal douze ans de règne li nga fi def néew ma président de la république defu fi dara de président bu nekk ak la fi def mu ngi fi waaye li nga fi def benn président la république mos ko fay def ci li ma bir la ndax man mi la xam laa nañ sawane boole ñu nuyoolee ca bëccëgu sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma boobu ministre des mines et de la géologie nga woon ñu fasante yow kóllëre ca samedi boobu kóllëre goo nga di ko sàmm di ko dox sama digg yow heure boo ñëwee Thiès soo gisee wooma saafonteeg man teral ma tax liggéey eh, continuer ci liggéey bi président de la république hommage dina ma war ci yow li nga def ci jaam yi hommage dina ma war ci yow linga def ci lislaam bi ci diine ji yokk ci jumaa yi respecté jumaa yi yëfar ci jàngo yi kon la yàlla wax ci alxuraan wala lakum diinakum waliya diini yokk fonk diine ku dundal diine nga ku dundal lislaam nga rawatina li nga def ci këru diine yëpp ñëpp di ci teg seen bët maa ngi lay sargal sargal gu ma tibbee sama xol di la ñaanal yàlla foo jublu yàlla na la fa yiw yàlla bekk yàlla na yàlla aaral la boppam ni mu aare aara sa kursi ak sa njaboot gépp ak képp ku sax ci yow ci barke borom Tuubaa doole maam Cheikh Ibra Fall président de la comment dina ma war ci social bi nga def xool li nga defar ci poste de santé ci réew mi xool li nga defar ci ay hôpitaux di waaj a inauguré hôpital départemental bu Tivaouane comment dina ma ci bourse de familiale yi dina ma dina ma jokkal tolloon nañuy jamono ca jamono yu njëkk ya bu timit jotee àll bi yëpp gi yëpp koo ci gis sonde lay taa wala lamp son lampe tempête wala lampe pétrole tey foo aw ci monde rural bi éclairage public baa ngi dox ñun ñu rootatuñu teen ndox maa ngi baawaan yal na la ko sëñ Tuubaa yal ko yàlla fayal boppam baawaanal na lépp loo bëgg ci daraja yonent bi barke salaatul fatiha président te mu yéene ci yow ci ci la ak gërëm na réy na lool waaye dénk naa la yàlla ak yonent bi man bëgguma mbay nekk ca Thiès quartier Diamaguène numéro téléphone 77 826 93 93 jërëjëf Sall. yow daf mel ni yaa ngi yaa ngi koy jëfal message yu tàggatoo quoi dafa mel ni dafa daw. non du tàggatoo jaam bi bu liggéeyee da koy sant loolu la. man musuma sant président de la république musuma dugg ci affaire président de la république mais ca moom la ndax dama ko seq ak moom kóllëre la sàmmante ak moom te ba may sàmmante ba may amante moom kóllëre googu booba jamono kooku ne di nga nekk président la république du Sénégal ay ree nga koy def jàppatuma ba mais ci jamono yi président Ablaye Wade la boobu moo nekkoon ministre des mines man si ses laa doon dem doon seeti Landing Savané ba ci ko sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ma ñëw juste fekk cérémonie bi tas moog Landing ñëw ni nii ceefana bi ku ci nekk di xaar oto mu nuyu ba pare Landing nuyu ma ak moom ne ko monsieur le ministre kii sama frère la waaw ah, monsieur le ministre bés ñu ci teere ci samedi bi ci bëccëg sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ci samedi gi nga xam ne ci la Serigne Touba del si woon ci jamono maa ngi ci fasante yow kóllëre ngir jëmi sëriñ Tuuba ba ni ñu toll Macky fu ma gis dina ma jox sama cër dina ma teral bu baax ak maa xam waxu xàmmee te nit ñi dañoo réeri mbir dafa ne président la bi mu nekkee président de la République commencé def ay ay ay ay liggéey ci réew mi mais commencé naa liggéey ci réew mi ba mu njëkkee nekk ministre de l'intérieur lu doon lu doon premier objectif am c'était la sécurité daan wàcc ci terrain bi ba nit ñi di ko tuddee rig man fekk naa opération boo xam ne bi dama doon dox fekk gars yi nekk bu commissaire santé préparé ba mu wàccee dafa doon jéenam ak tiitam moo teg kasam jiite opération bi mais dafa yemul foofu mais bi mu nekkee premier ministre moo moo moo moo génne chantier

Cambérène moo ko installé Diène Farba Sarr moo ko moo ko piloté chantier bi ak bu bu nekk ci euh, tableau Tivaouane boobu loolu ndox daal euh, taxawaal ko foofu il a beaucoup œuvré dans ce pays-là avant avant d'être président de la République du Sénégal nit ku social la nit ku bëgg réewam la nit ku bëgg Afrique la et je lui rends un grand hommage sur sa sur sa diplomatie internationale il a œuvré pour le pour l'Afrique

passage am ci Union africaine zéro faute waaye mais kii ku ko sargalul doo gor waay man de franchement parlant même bu nekkutul président de la république xanaa ma bañ koo gis bu tëbat mais saa su ne seconde su ne ba bëkkëra may ñibbi barsàkka sama wóolëre sama xarit la te maa ngi féddali sama kóolëre te moom di jëmi yàlla asalaamaaleykum loolu loolu loolu dem naa fa mais gis naa ko nii rek mais loolu taxumaa jóg maanaam moom yàgg nay dem di jaale ji loolu di événement lañ bàyyi di jóge loolu événement jukkoom la fu mu dégg kilifa walla nitam wala lu bokk ci moom te fu am ku mu wàcc lépp liggéey dina fa dem jaare ji am jaal c'est pas la première fois mu di ko def loolu di événement waaw euh, dinaa ko répété parce que moom moo xool ki ko doy xam ne moom kii la yaakaar pour njëriñu réew mi wutu pour njëriñu boppam wala njëriñu doomam de bu doon njëriñu boppam danaa damay def troisième mandat waaye gor la daa doom koddoom doom bu doon njëriñu doom dafay si samp doomam ne leen sama doom laay fi samp wutal ko mouvement mais yooyu yëpp ko parce que républicaine la c'est un grand républicain c'est un grand diplomate mais saa waay kii wàccoo naa ñoom wàccoo naa réew mi wàccoo naa réew mi parce que su waaw parce que parce que loolu yëpp ku deful dara doo dégg jaajëf dafa liggéey démb ci këru di kon ba moo demee. ba jeexal taxaw xamal na leen ne man mi kat fii laa yem ndax lii laa waxoon ak askan wi maa waxoon ci 2016 ci référendum bi ne bu fekkee ne 2019 yàlla def na askan wi delluwaat ma seen baat bi mooy sama ñaareel ak sama dernier mandat ñu topp ko di ko sañ naa ko waaye ñu ne ni mu la nii wéy nii non yem ca parce que la xam na mais nit la c'est un grand responsable ku ku tas a këram ku tas njabootam dina dem ba fu fu dem sësee mu ne ne fii laa yem fii laa waxantoo ak fii laa yem kooku gor a koy jëf te jëfi gor la def euh, élection euh, bi man jóguma pour candidat diw wala candidat ma Samba wala ma Demba xam nga lu ma jóg sargal président la république jaajëfal ko rendre ko vivement hommage la ca des ça ne